yii sama doom ma ci indi loon naa ma maa ngi ko jële eh, supermarché ah, ah, Al ah, <laughs> man kay damaa ñëw bi ndekete yëf yi fii de la wulee ñaar. ah ñu fi am allah am nañ ci stock bu bëri sax damaa dañ kumpa nag ma gis fa bii ne naa xool moom itam. waaw ñaari façon la moo nekk fii. ah waaw la ak bii nii mais saveur yi bokkul. lu leen wutale. ah daa gën a neex bii tamit gën a neex. <laughs> <laughs> ah yow lay wax ni te kat bi daam am ah, petit modèle. bi petit modèle euh, est-ce que ñaari yi ban moo ci diabétique bu ñu ci kii bu ñu ci jël. bii ah bii la waaw ah, ok. bii moo gën a grave par rapport ak bii. man bi gën a garaaw laay lekk de <laughs> Sophie Ka daal diabète ma ne ñu ko bi. waaw Sophie waaw waaw waaw merci beaucoup. acca calculer ma kii kii rek xam nga la mel rek moom bu tàngee rek noonu lay waxee waaye fi mel nii léegi mu génn ci kii man man man la bëgg ma ni man xam naa loolu man damaa sonn ci pièces yi kii pièce na ma keneen pièce kii yow digganteem ak boobu ah eh, eh, sànq lañ sax xaju ci. laa lay xam nga li ma la wax. waaw ay pièces xool su ñu réaction yi kër kër na nga ko waxee ba ngeen di gone woon ngeen bëggante woon na nga ko waxoon keroog. yaa ngi dégg kon voilà ñun voilà. maa ngi nii maag sa yaay ji. Ah. Eh, ñu ni ŋaaj lu muñ na ko fi dara daa ko defarul. yaa dégg yenn saa yi mu ne ma man sëyeetuma objet laa ci kër gi te mi ngi nii toog. ñun ñun mi nañ nañu yooyu <laughs> kii ngay yëngal kii intellectuel la lii gis nga keroog ba ngay wax man xam nañ ñëpp mm. waaw moom <laughs> lii ah. kii rek nii rek def ku mere ne xam nga fiir moom dafa ah. fiir a fiir ba fiir rek fiir a ko dugal ci lu ne àdduna daa am solo moo daa fiir rek waaye li nga wax gëmu ci dara àdduna am solo <laughs> moo laay laa àdduna amul solo waaw yooyu yëpp jaru ko ah waa ligu fii na nekk benn wees wees na waaw loo bëgg déet moom kii day moom dama ni fii ne ay leer di yëngal moom lay lay la la ah oui gis nga da nga koy juy ñaan ba dina def nii muura muura bi njëkk roppam bu njëkk bi. ah ah Buraan lii bu ko faale. tey tey garab lekk te sa ji toll ci moom. waaw yow ma xam ko. ñoo na ko dara ci moom. lay eh. damaa bëgg lii nga bëgg a xale yi laa bëgg nga ba ko. ci lan ci lan. xale yi nga bëgg bu buuxaat sañ xoolu nag. Ah, ah waaye kan moo la wax lool. Ah, xale yi ma ko wax. kan yow diggante xale yeeg sëñ xoolu xam nga li fi xewoon. Ah. seen 800000 yi man lu ne laaj daj. maa ñaaw yaay. ah léegi war ngaa jël xale bu ndaw aw mi dina leen buuxaat sëñ xool. bu fi indeeti beneen cas léegi lu ñuy waxati. waaye yow asu man magum démb tool man toog xale yi wax ma seen wax pour moom euh, euh, euh, mettre en rapport ak ak xool booba sa fekk na ñoom ñu nekk ba pare ñu ñëwaat man may defaraat rek diggante. yow loo daj ci di eh, diggante seen xool ak xale yi man dañ naa sukkura man man sama vie laa si joxe woon ba génn naa fii seen xool tëggal ma eh, ndax ndax eh, huit cent mille li mu jox xale yi te damaa risqué ba tey jii jàmm am si ah xale yi ñëw wax la da nga gëm. waaw ah, Ndeye yow la xam naa la dofuma. nday fu sa intérêt nekkul doo ca dem ah, xam naa la fii fi mu toll nii xam nga ne xale bu ñu mbaraanee sañ xool danga ciy lekk wala yow si jëm boppam nga teg sañ xool dil ne ko jox ma ma boole laa xale nday xam naa la xanaa ma def ko bu yàgg nday wuyu ma génnal ci li nga ne yow yaa ci war a génn génnal ci lii yow ci lii nga ne nii baaxul de en tout cas problème nga nar a indi ci kër gi histoire nga nar a indi ci bu boobaa te bu boobaa nag wax dëgg yàlla nag man man man man damay nëtt sama yoon di ci nekk nga nëtt asu comme que yow mais sama dooma ciy dugg sama euh, sa doom yoonam nekku ci sa doom yoonam nekku ci ginnaaw moo ñëw wax la te moom moo ma wax information ndax man foogoon naa ne ah, ah, ah, xadeeg seen xool c'est fini mu awaa ma joxaat information bi kon warul ñëwaat di la ko wax waa léegi yow loo ciy dox di leen encouragé doo ko arrêté doo leen bëgg jàmm Ah, mag bu nekkee ci kër gis ñaari ndaw di di bëggante loo ciy dox lu dul jàmm ak ñaari ndaw yan ñooy bëggante xale ak seen xol bi seen xol ndaw la ah mais mais ndaw laa ko dem na xale lay doxal liir lay doxal ndax fu foo fekk paa bu doxaan xale nga xale nga loolu dong nday arrêté bi dina la booleeg ba nag ba dinaa la booleeg ba de waa ñëw ah, ah, asu boole maag waa bàyyi rek yow problème bi tey nga see taxawee nii lu tax ma ciy taxawee nii sama doom ne ci biir nga bëgg koo dugal say dëbb réew mi te yëgoo ko bul wax loolu li sa doom di def yëgoo ko léegi li doomu dàmm di def mu bëgg la ko wax pour lan bu leen ma dugal nag asu man doxuma ci lenn lu jàmm ak salaam xooluma ci dërëm soxlawuma ci cent francs dërëm ma suñ xool di wax ne ay waxi dama lay jox xaalis man leen dërëm soxla ma yow nga encaissé ma dégg na encaissé nga kan moo la wax ah waaye yow ndey na bàyyi ma waay xoolal ma nday waaye bàyyi ma waay ndey lii diggante sañ xool a xat daal nag moom nang ko dakkal waaw te génn ci aw nag ba mu set génne ko ci de wax naa la ko nag bëgguma benn coow wax tamit dina duggaat ci leneen ndax yow doom di nga jur xam nga ko gënoo ma koo xam bu ma ko yoree insisté kon uh, man insisté man daal naa toog rek yàlla baax na man ko yàlla na ah, en tout cas daal xadimu ndaw ak sëñ xoolu moom moom moom dootu lu ñuy waxaat moom loolu moom page bu ñu fermé la ba pare wax déedéet page bu ñu ferme la page bu ni mm-hmm. euh, adduna bi na xam naa ne jaxasoo na euh, nit ñi war nañoo bàyyi di ameel ay nit ay àq ndax àq baaxul àq dafay topp nit ba ci biir bàmmeel ah mm-hmm. da ngay gis mag mu toog ay xale yu ndaw ay kade xale ay kade minim ah dégg nga maam ñëw di di di amee di ko ameel àq yoo xamante ni kenn xamul yi àq nan lay mën a def yow nag na ko góorgóorloo góorgóorloo góorgóorlu ba ku la jox lekk nanga xool ban lekk bi fan la ko jële ba xam amee lul àq nit ba jox la ko ndax lekk àq ci feebar da doo wér de da ngay yokk da yokk feebar rek waaw te nit ñi léegi ñoom seen yoo nekkatu ci ñoom fu ñu ko mën a jëlee seetuñu kii dafa dafa dafa yalwaan joxe seetuñu kii daf dañ ko tafu ki seetu dañ koo dénk ñoom nan nan fexe ba jot ca rek ay hmm? eh, àq baaxul de àq baaxul de na nga contrôler say lekk bu baax de am na xale yoo xamante ne fii ci kër gi buñ la joxee lekk na nga seet bu baax a baax Hmm? ah waaw waaw ndax man nañoo ameel àq mag nag te duñ ko yëg <laughs> am na mag ñoo xam bu leen amee lay àq billaay boo ko joxee nit bu ko lekkee day gën a feebar rek <laughs> maa la lu mel nii waaw waaw ah, bari ci biir kër gi mbedd meeg fépp rek yow daal fu lekk jóge bi fan la jóge laajteel fu xaalis bi jóge naam feebar nga waaye bul nangoo lekk àq kenn na nga moytu àq bu baax a baax a baax ak moytu ko nit a ngi génn ci tali bi def def accident oto fiir ko wala mu amoon ba amatul ñu naan dafa feebar dañ koo liggéey fekk àq la rek àq dàq moo baaxul. nii de nii de kontaan ah ah waay di ko waxtaanal sama doom maa ngi doon yàkkamti ndax bëgguma muy wéet. wallaay dëgg la dëgg la moom kay. nii ne yéen a ngi waxtaan de. waaw moom kay mi ngi góorgóorlu mi ngi góorgóorlu di wax de. yàlla ko wax de nay góorgóorlu. yàlla bu la yenee benn yen bi. bul bul mu bul bul jool bul gañ. yàlla wax loolu xam ne ko yen. yàlla moom dafa wax ni. man maay tooyal ba mu neex ma woowal. waaw man maay dundal ba mu neex ma ma rey. man maay teg nit bànneex bu mu neex ma feebaral ko. loolu kenn mën ci dara. waaw waaye lépp ci mën a am mooy. Mhm. lépp lu ci mën a am ci biir àdduna bi. Mhm. loo mën a def na nga moytu lekk àq jàmbur. ndax àq c'est très dangereux. di nga ko xamoo ko sax àq baaxul. yee ak a bon ak ak musiba la hmm, hmm. yéen ñu bëri ñi ngi lu ne léegi dal ñu naan ak yaa ngi dégg moo tax sant yàlla rek eh, te eh. man loolu suñu xollu hmm, eh, comme sama dara réeru la man damay santaat suñu borom alhamdulilahi alhamdulilah bi samay doom divisé wu ndeysaan ndeysaan nekk nañu benn ah, ndeysaan ku ci sa morom tudd dootoo am jàmm démb démb bu mu fekkoon nëbbutu naa jooy ndax li ma xale yi def démb déet waay billaay xale yan la oh, sama ñaari doomi jigéen ñi rek ah, ah. awa xadi waaw billaay fekk ma toog démb li ñu def seen mag yi ma ni déet ñu wàññee ko ci man mm-hmm. ñëw wutal ko régime am jëndal ko ko mm-hmm. pomme pouvoir ko jus boo xam ne boobu ñu naan sukkar si bariwul ban pomme ban la bu saf bi wala bu déj bi lañ ko jëndal pomme rouge bu rouge bi lañ ko jëndal lañ ko jëndal moom lañ ko digaloon ak pouvoir yaa ngi dégg man may wax ñu ñu ñu ñu saafal ma saafal ma defal ma loo xam ne nii foie bi ma yëkkati junni tekki nag ni ma papa xam naa yow bi jëndal crédit ma xam sant yàlla. Euh, euh, ma ne ah? ma baal ma. waaw ñoom da fois lan la jox. fois bu bu neex. lan lañ ci def moutarde wala soble wala lan. waaw dañoo laxal soble ba. am na la. ah am na yooyu dañ koy tere. am na ketchup. Ah? am na hmm. na ko mais sant yàlla rek. baa jën ñu banaana rek. ah di ko dara manqué wu. yaa ngi def erreur de. Ah, yaa ngi def erreur de xale yi dañoo baax. ah daf ngeen erreur de. erreur la. xale yi indi nan lekk ngeen lekk ko mi ngi neex seen xol waaye xamu leen xale yi fa lañ xaalis boobu. fu ñu jëlee ma xel ñaari xale yu jigéen liggéey ñu di jënd ay yàpp ak di boros li may wax ci àq gi nii. Eh, li may wax ci àq gi nii. Eh, eh, xool man bu doon awa sax. ma ne waaw moom dafa doy waar. waaye ku mel ne xadi. boo ko mën dafa jub dugul ci. yow yow yow yow yow yow yow yow yow yow yow yow yow yow yow yow yow awa yenn saa yi mu corrompre xadi bu yóbbu ko ci loo xam bëgg koo yóbbu li ma la wax dama koo xam xadi ji koy bambara leer kenn moo yow waaye ba ban bambara di koy bambara dafa am kenn du ko corrompre waaw waaw waaw baax na en tout cas li ma la mën a wax mooy xale yi na dee leen seet ñaari xale yooyu del xool fa la ñuy jële xaalis bi balaa nga koy jox kii àq dafa sew àq dafa sew lu àq sewee yow xale yi ñeme nañoo dem fekk mag mu toog ñu ne ko buu dafa feebar mu jox leen xaalis ñu dem lekk ko man xam naa li ma la wax boole ci mag mu ci ñàkk fayda it dem ci gone yi di ñooñu ñooñu ñu yeew la def la buubu golo rek waaw def la lañ lay def loolu la mooy wax ji ah mais ñi mag yi jëmm lañu waaw. xale yi bu nu fekkee mag mu ñàkk faayda mooy lan. ñàkk faayda nii yem ci ñoom dugg ci ñoom. waaw ñu ñu ñu ñu jël la nga yor rek. def la lañ lay def yeewu. xale itam war nañoo seet nan bu ñuy wax ak mag nanu xam lan la ñuy wax ak mag ki wax loo xamante ne moom la ñuy def. waaye di wax ak mag loo xam doo ko def mu nekk àq sa diggante ak mag mi tamit baaxul. mag lu muy affaire xale bay wax ak ñoom de xaar lu ñu de ñu ñu ñu ñu loolu loolu en tout cas xale yi war ngeen seet war ngeen saraat seen doom yi ah baax jàngal leen alxuraan baaxul xam naa li ma la wax yow da ngay xutba léegi wala da ngay tafsir tafsir mooy lan lan laay tafsir wala ban problème nga amel àq am ak àq yow ban ci kër gi fekk bu feebar def ma xam lan mooy joxe feebar yu yenn feebar yi ma xam ne àq joxe may waxtaan moom ci àq dama ci amul droit kii dara jox ko feebar lu dul xalaat fi nga gis ngi lekk ndax ñi ngi dund ñu loolu dong moo tee mu jóge fii mu ne loolu dong lay xalaat te nee naa ko bàyyil xalaat boobu yàllaa yor ñëpp bàyyil xalaat boobu loolu dong la de mais ak moom xam naa ne am ngeen problème yéen. ak ah, kay tol ñu toll nii moom moom la ñëpp war a waxtaane ak ah, baaxul de <laughs> yow moom dama lay digal boo bëggee sa yaram sa jàmm yaram del seet xale yi li ñuy indi. laaj leen fan lañ ko jëlee. kan moo leen ko may ndax ay xale liggéeyuñu ba pare dégg nga maam di yor xaalis di leen jëndal ay poire ak ay pomme ak ay banana ngeen di wax banana ba nooy naag pomme ba banana ba nooy naag yooyu te seetu leen ko yéen nga ameel nit bàkkaar te xamu leen ko waaye yow bàyyi waxi fois bi waaye yow doo bàyyi fois bi ngay mu taal yéen doo leen ko may yow yow yow bàyyi bàyyi yow moom mënoo bàyyi fois bi xanaa yow fois bi ngay def mu taal di jàpp mayonnaise te xamoo fu ma ko jot doo ko bàyyi doo bàyyi li ngay def doo bàyyi li ngay def xool lu àq bu ñu ñëwee ma may la ci comme yow lim lim lim la romb la métti. lekkuma xale li ni rek kaw laajal yi fa lañ jëlee li ni lekk. Hmm. yow xale yi dañ lay parental ñii di mag i jéem a ko jëndee sëy. waaw ah, baax na àdduna ngi seen kanam du da ngeen ñemee àq rek continué àqaa ngi seen kanam àqaa ngi seen kanam mi ngi topp seen ginnaaw waa si dem leen dem leen. kii am na de. dem leen poire bu dijj sew. poire yu mag yi ak pomme rouge. <laughs> waa jàng bal ba tàkk na de ban bala tàkk li ñu waxante woon def naa ko ah um na kaay ma wax li ñu waxante woon dafa bari ban la ci ñaan naa baat eh maa yow dañoo mus waxante ñaan baat eh, fekk naa leen fa la toog ca saal ba ma fekk leen noonu ñu toog di mel ni ay xar yu ndaw jiit le kee tëdd ne di di xaw ma day juut xaw ma lu muy def man xam nga ni kër gi ba mu neexee gaa sax man dama fee neexlewul waxuma laak ba mu fi naqaree maa ngi yow fi am ay laa nga sutee lañ ci kër gi ñaan naa baat ñaanal baat lu jiit le dem <laughs> loolu la waxante woon kat génn si li nga ne dangaa juum mu ne ma ne dangaa juum ndax maa ngi yow li ñu waxante woon ñaan baat mus see bokk toogoo ma toog benn yoon ma ne la damay ñaan baat amul mais boo demee bay jël say décision mais dee ma avisé lii boo ma ko teeloon wax doo musa ñaan baat. ndax lan Amina yow la moo jar ñaan ba yow ñu waxante la ñuy waxante ba pare. maa ngi yow déggoo li ma la wax mosuñoo waxante ñaan baat. te umu ban may takk umu nag tàgguwuma la. umu ban may takk tàgguwuma la di yëgoo tinoo kon bu ma fase umu du ma la tàggu. nan waxante dëgg doom lay nag nag nag mooy ku si wujj di sang doo set. Amina kii yow la <laughs> yow yaay baadoo la. yow yaay jaam yaay baax ndox yow yaa attana taxaw fi te naan ma bañ may tag tàgguñ la bañ may fase duñ ma tàggu yow mi Amina. yow damaa yaakaar da nga jaawale est-ce que jaawale wu ma Kine umu maa ngi fan lañu toogee umu maa ngi yow fan lañu toogee mani la nan ñaan baat loolu laa bëgg xam eh eh contrat bi ñaan baat bokk si. fii dama fee jënd bàmmeel damay sëy ba dee déggoo ma de. kan mooy sëy man yow fii da nga fee tekki dara. waaye man yow maa yow a yem ci kër gi di tekki wuñ fi dara. duñ fi dara ci kër gi. mu naan bul sa bopp buy ma bul manqué ba pare. yow yaa takk sa bopp bul manqué ba pare oh. ma ngi nii réegu di sëy. yow yaa takk sa bopp di. bu may na la waat ah! nag da laa waroon a may baat ku ñaan baat ku ne dan la koy may te xam naa ne sax may na la baat ci xelam kon yow fii dafa too fi dara doo jël sa bagaat nga génn kër gi nga ñibbi umu yéene nekk la borom a cee fanaan <laughs> man de umoon yéem nga ma nag vraiment génn ci man nag soo bëggee jàmm dama ne su ma génnul ci yow na nga génn ci man soo bëggee jàmm um léegi su ma génnul ci yow jàmm bi nga doon na ngeen defee ngi ziar da ngay téye sant yàlla bu baax eh, alhamdulilah nga dugg si rek bàjjen woo ma ni ma yaa ngi fi man a xaaral ba daw si dëgg la dëgg la dëgg la eh, eh. à sant yàlla voilà. Euh. ma la laaj yaa ngi ci forme de yow moom yaa ngi ci ah parce que problème mooy ñu ngi regroupement lañ nekk nii. Mhm. maa ngi dajale éléments yi parce que dañoo war a dem mission. Mhm. ma woowee ni ma yaa ngi fi ma ne ko foofu ma ñëw nag sëñ bi pour nga xoolal ma ci li saxaar bi. Mhm. kay doomu jàmbur laa yóbbu deux cent soixante sept personnes. xoolal ma yoon bi ndax ni ñuy demee ci jàmm ndax noonu la ñuy ñëwee ci jàmm. loolu laa bëgg nga xoolal ma pas pour man man moom garaawul. mais pour sama élément yi ma xamante ñoom laa couvrir yóbbu ah, ah, yow wóolu nga man moom ah sëñ bi yàgg naa ñëw ci yow de yi ma jox bu dee baax la ba léegi mu ngi mana mooy ndomba nga <laughs> moo tax ma ne xaaral ba boole waale sama booy li may def liste bi après mm-hmm. ñoom ñëpp ñoo xam seen tur yaay ak seen tur papa s'il le faut ma joxe leen numéro bi ñoom ñu vocal la kenn ku ci nekk. ñu vocal ci 77 378 78 18. voilà ok amul problème waaw ku nekk dama bëggoon nga xoolal ma sama yoon bi. Mhm. yan sarax ak ñan laa ci war a def. beneen bi mooy mooy gàllaaj yi ma la joxoon rek. Mhm. bi nga yooyu bëri nañ ci ay yoon yoo xam ne pour lool la. Mhm. Euh, am na ci yoo xam ne pour fetal la. am na ci yoo xam ne mag ñi daan nañ ko defar. ñu koy defar ci xisbil baax yi. daan nañ wax ne. Euh, ña ka daan takk di dem. ci deuxième guerre mondiale ba mhm. wala boo guerre mondiale ya daan am ya daan dem guerre ya mhm. naka daan def de bu ñu ko takkan danañ ñëwaat ci jàmm insha allah donc xam-xam boobu mu ngi fii mhm. euh, bari nañ ci ay yoon daal mais daan nañ fokkal ñu xoolal leen seen sarax ak yëpp bu ko defee kenn ku ne ma defal ko gàllab bi ma ci jaaxal mais incha allah nag mais loolu non non non ah, du ci dara du ci dara du ci dara amul problème. Mhm. kon man dinaa joxe numéro bi léegi. su ma demee camp su ko defee ñoom ñëpp ñëw ñu ñu bokkaat. amul benn problème ku ci nekk bokkaat ok sëñ bi merci. da nga gëj a entraîné. <laughs> Ah? da nga gëj a entraîné <laughs> mais noonu lañ koy waxee. leneen saal leneen saal. salaam mel nii. def na li ma dajale woon yépp jox naa ko kinne jàpp ci kër gi. léegi nag sëgëm buu mii ay na waratula fajoo Sénégal dañuy xool nu ñu doxale mu gën a rafet ci ñu ñett ñii lay yem ndax yor na benn kër goo xamante ni fi mu nekk fan la nekk di suuf sabilis mhm. mu yor noonu war nañ ko mën a jël jaay ko ndax li mu nekk ni metti na de je souffrir beaucoup metti ndax lii ku mu dal il faut nga dem bitim réew faju ji te nañu ñoo ne ci kër gi maa ngi ngay sama mag nag may sa rak sa si yow rëkk tërëkku ma la ki ne mi ne ci biir kër gi di jàmbaar doon aw boo xam jàmbaar la ki ne jàmbaar la ba bañul jëmm ji dara léegi nag dañ wax ak moom ma jël kàddu ko teg ko sa loxo yow mi kilifa nga wax ak moom mu xool nu ñu jaayee kër gi rek mu rek sawaru ci sawaruma ci woon ndax lu jëm ci ay kër ak wala ñu naan baa def léegi moo nii yooyu dama cee génnoon waaye nag alal fajul dee waaw gàcce lay faj te toog fi di téléthon am na lu ko gën ah, am déet ndax naan ay ordonnance wala di ko faje am na lu ko gën te mu teg alalam ci bërëb yaa ngi dégg waaw te mbir mi dama koo étudier soo ko d'accord ci idée bi ndax même buñ ko joxee day am kër yi nga foore eh, classé bii ñu déclassifié DG yi lañ njëkk a bind te bu ma juumul turam moo nekk troisième position ci ñi ñu war a xam nga li ma donc kooku bu ko jaayee moom di këram a ngi taxawal ndax ñun ñu dul DG kenn ñu ko ñoo bind yaa ngi dégg li ma la waaw kër ga nag bi mu ko waxee dama ni ko man bu ma neexoon fi mu ne laa yaa ngi dégg ma ñëw def loolu ñu def ay ordonnance di faj soxla yi waaye nañ ci waxtaan ak moom lu mu feebar feebar am na ku ma ci waxal nag Euh, ku ab tubaab bu presque tubaab bu ñuul la sax. naan ma non man li ma bëggoon mooy terrain boo xam ni maay démarrer suma fondement dégg suma plan wu bopp mais bi ma ne ko waa Sabulis rek la wóolu ñooñu ne ma ñooñu xam naa. man man bu ko jaay rek. waaw ci la wóolu noonu ni bëgg naa. Ah. yaa ngi dégg waaw depuis bañ ko njëkk avancé it tegu ci baat moom bëgg na ko fi ne woowaat na ma sax sànq. ci laa bëggoon ñu wax <coughs> kër gi ñu joxe ko. yenn yi ñu faj ci soxla yi yenn yi jox la nga denc yaa ngi dégg yéen ñu awaat ci kër gi fay lu bari location boo amee ci kër yi ñu tabaxaat ah, moo gën ah. yàgg yàgg dina ko am dina am dina ko am de dina ko am de ndax moom ndax moom ku baax la ku yaru la ku respecté ay mbokkam la ku respecté famem la lii ko dal nii kenn yéenewu ko waaye kër gi il faut ñu jaay ko ah, mën cee faju ndax di la kettal di ko tax toog nii bañ a jóg xam naa xalaat njaboot rek moom la buggul benn jabaram sonn buggul sama benn jabar sonn buggul ay rakkam yi sonn ak moo tax rek moo ko tax a bañ a a waaw mbir mi loolu dong bala ngaa jékki ne ñu yóbbu la ci tiktok bi di la téléthon loolu moom rafetul nag da ngay di premier DG DG yaa ci yàlla mos waaw kër gi nag man duma ko jaay moo hmm. koy tabax xale yi ñoo tax ak sama yaay loolu ma la wax waaw ah, nag benn hmm. waxtaan ak sama yaay ak kinne waxtaan ak mu noppee naa leen wax ma ci ma ciy def daal loolu li may li may looy looy waxtaan ak kinne ah ah sa yaay moom solution bi ko déggee mooy njëkk looy waxtaanee ki kile ah sa xaru Casamance bi yow man daal lu nu mën daal kii fi mu la dugal jaaxal na ma mu naan moom ma waxtaan ak kenn yow xanaa man du ma sa bàyyi man mi la wax ak yow kii du kii toog li muy jigéen jigéen sa bàyyi la mhm. looy waxtaan ak ay kinne ci kër gu ñu war a faj soxla yi faj soxla waaw yow ñun jëluñu kër gi xam nga kinne bu ko waxee du d'accord ñun moomuñu kër gi sa kër la yow yaa koy jaay waaw ah. yow yaa ciy faju ñun fajuñ dara jotuñu ñu ngi sant yàlla bu baax di tous di bois waaw xamal luñu lay xamal xamal luñu lay xamal Euh, bu bu kunta baal baal kii mii nga nga nga jël teg ko ci sa xef yi mu toll nii ni kii bii ni mu tuddati pot de fleur bu ndaw bi yow bu ñu naan nga ne kinne bu ñu pour bi yaay jee ay yaay jee ñu fan yooyu mu fi defoon jëlal naa ne xelam ni c'est fini laa la wax ni yow looy waxi kinne yow même bu dee ak wante bi mënatoo signé dinañ ñëw jël encre yi jël sa empreinte teg ci wante bi. xam ne yow mi yaay jaay waaw waaw ah. allo waaw génne nga man de bu dee man a ma xam ne Kine du ñëw ne man aw ma Kine benn affaire. yow daal il faut nga waxtaan ci Kine. ko kii bëggu la wér. bàyyi ko foofu rek man ma woo Kine woo ma yaayu Kine woo ma kenn. kii bëggu wér. sama yoon newu ci bu bëgg wér nag. ñu àq ku yóbboon rek ni Kine suñu kilifa. ah loolu def de.